dibeer fukki fan ak juróom benn juróom-ñeenti waxtu jot na ba tegal fanweeri simili ak ñaar ñu ngi fii ci morgue l'hôpital principal bu ndakaaru fii nag ñu nemmeeku fi mbooloo bu takku mag ak ndaw góor ak jigéen ñëw ngir gunge Djibo mi nga xam ne nekkoon na fi politicien bu mag nakar ak tiis muur xar kanam yi ay yuuxoo yu bare jooyoo yi di génnee fu nekk. lii nag li ko waral du lenn lu génn àdduna politicien bu mag bi di Djibo Leyti Ka alxamis fukki fan ak ñeent ci weeru septembre ci biir mbooloo bi ñu ràññatle xarit mbokk jege ñaale ak politiciens yi nga xamante ne Djibo Leyti Ka jot naa liggéey ak ñoom kenn ku ci ne ci ñoom di sedd lu rafet ci nit ki le Djibo Ka wax dëgg yàlla bokk naa si ñi ko sopp ndax ay jukkoom yu rafet homme de conviction la mu doon nit koo xam ne aussi kenn mësu ko gis mu am taxawaay boo xam ni dafay wane wax ju ñaaw wala dara parce chaque fois mu amee ay jafe-jafe daan na ma jox ay conseil yu bare euh, daan na ñëw sama kër daan naa dem këram donc mu nekkon ko xamné da dama ma un peu comme son héritier naturel parce que amoon na yaakaar trop si action politique bo xamné ne démarré naa ko ngi fàttali ko bu ma demee Linguère waxoon na mi que boo ma ko wax ni da ngay dem Linguère do dem dal fenen sama kër ngay dal donc mu tégon ma comme doomam mom naka nonu njabotam ya jabaram mi di kumbaka daan dem sen kër donc ko xamné sama baye la won sama xarit la won sama soppe la woon mais aussi sama référence won ci lépp mo doon xelal mo ma nekkee ci opposition bi aussi daan na souvent sama kër di ma xelal euh, koo xam ne dafa bëggoon aussi république c'est un sens d'esprit républicain boo xam ne moom la ñuy wax ci mom inculqué na ma ko wax na mu ni que boo jógee ci république na nga xam ci république nga jógee. nek nit ku yàlla baaxal nit ku yaru nit ku am teggin. mosoo dégg ci rajo wala télévision nun la Djibo Ka moo wax lii ba président Macky dem këram nu ko dafa am lu ma la bëgg dénk ci teraanga ndax yow waroo rek toog mu nangul ko ko fii mu nekkoon di hôpital ak soins ya xam ne daan na ko am ci bitim réew yëpp président Macky ni ko maa koy gàddu tey nag waa kër Cheikh Omarul Foutiyou waa kër Xaadim Rasoul waa kër Cheikh Seydi El Hadji waa kër Maam Limaamu ndax Djibo Ka ñëpp la digaaleel ñoom ñëpp noo ñëw téewe bés bu yal na ko yàlla yërëm ca xare ko àjjana ñàkk nunu un homme d'état ñàkk nunu ca dëgg-dëgg ku xam ni ay mbokkam gërëm nunu ko ndeyam gërëmoon na ko bàyyam gërëmoon na ko dëkk ba mu dëkkee ca Jolof defar na ko ba ku ne mën nga fa yegg yal na ko yàlla xare àjjana gannaaw ba mu ganesee àdduna le 27 février 1948 moom Djibo jot na fi liggéey ak gouvernement li fi jot jaar yépp tey jii dem na bàyyi ci ginnaawam nakar ak tiis ñu koy jaale mbokkam ak mboolem sénégalais